الله أكبر الله أكبر ala moom mi yelloo ak cant di ko jéggalikoo ci suñuy mbir yépp waaye di jéggalu suñuy bàkkaar di yeesal suñu tuub di seede amul kenn wala lenn woo jaamu ci dëgg jaamu ga di ñu jëriñ ñàkk jaamu ga di ñu di ñu lor lu dul suñu borom yàlla subhaanahu wa taala mbokki jullit yi mbokki wàllu yi yàlla moo wàccee ci ñun téere bu barkeel bu màgg kitaabun anzalnaahu ilayk kitaabun anzalnaahu ilayka lituxrija annaasa min adulumaati ila annuur li ak téere la moo wàccee ci yéen mu nekk téere boo xamante ne jubluwaay moo di li yuxrijakum min adulumaati ila annuur leen di génne ci ay lëndëm lëndëm yóbbu leen ci leer min zulmati shirki ila nuuri tawxiid min zulmati lbidaati ila nuuri sunna min zulmati lmaasi ila nuuri taa wa min zulmati ljahli ila nuuri lilm di téere boo xamante ne dafa ñëw ngir jëlee ñu ci li nga xamante ne mooy lëndëm lëndëm yi yóbbu ñu ci leer mbokk yu nit yi mbokk yu doomi ndey sunu borom yàlla subhaanahu wa taala moo ñu digal nañu jàng alquran inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu ssalah yàlla mu ne ñi nga xamante ne dañuy jàng téere borom waaye di taxawal julli wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya di dépenser ci seen alal ci li feeñ ak ci lu nëbbu yàlla mu ñu mel ni daal yarjuuna tijaratan lan tabuur ñi ngi yaakaar di seq borom bi subhaanahu wa taala commerce boo xamante ne du sonn ko mbokk yi sunu borom yàlla moo ñu digal nañu yàgg alquran wa rattilil qurana tartila ne jàng alquran di wéral njàngin nga kii daal di umaama muy nekkal mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na iqra'u alqur'ana fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashaabi dañ jàng alqur'an keroog de ñëw di romb ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon jàng mbokk yi sunu borom yàlla subhaanahu wa taala sant boppam ci wàccee gi mu wàccee téere bu barkeel bi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يعني من الحمد لله تمتنيل يلا تلن من الذي من بك خمتنا أنزل الكتاب موكتير به القرآن على عبده تجاه بمحمد صلى الله عليه وسلم تدفق منك الأخمتني ndëng-ndëng di cee nekk sunu borom yàlla subhaanahu wa taala màggal boppam wa azzama zaatahu alaliya bi inzaalihi alquran mu màggal boppam ci wàccee gi mu wàccee alquran ginnaaw bi mu santee boppam ci wàccee gi mu wàccee alquran tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadira yàlla mu ne tabaaraka barkeel na kan moo barkeel alladi ki nga xamante ne nazzala alfurqaana moo wàccee alquran ala abdihi ci jaamam bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam li yakuna lil aalamina nadira ngir mu xupp li nga xamante ne moom mooy war aduna yi waaye yàlla jiiñ ci alquran yaasiin walqurani alxakim sunu borom yàlla subhaanahu wa taala xam ngeen ne amul ci lu muy giiñ lu dul lu mag moo tax giiñ na ci mbir yu bëree bëri ngir alquran alkarim fala uqsimu bi mawaqi'i nujum yàlla mu ne maa ngi giiñ ci bërëb bi biddéew yi wa innahu la qasamun law ta'lamuuna azim yàlla mu ne wallahi ngiiñ jii may giiñ ngiñ gu rëy a rëy la su fekkoon ne xam ngeen li muy giñ la ko tax ngiñ moo di innahu la qur'anun karim yàlla mu ne alquran bi téere bu barkeel la bu tedd la kon mbokk yi ku bëgg ci ñun ak barke ngoyal ci alquran ku bëgg ci ñun ak leer ngoyal ci alquran ku bëgg ci ñun njub ngoyal ci alquran loolu de ci sunu sunu borom yàlla ci alquran la ko def mbokk yi sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax ci beneen aaya di tagg xeet wii nga xamante ne wàccee na ci ñoom alquran laqad manna allahu ala almuminin yàlla mu ne man yàlla baaxee naa jullit ñi ci lan moo gën a rëy li yà- li ñu yàlla baaxee id baata fihim rasulan min anfusihim bi mu wàccee ci ñoom yonent bu bokk ci ñoom يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دلن جنجل لا يي دلن ير ويتمد دلن تر ليد القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم sunu borom yàlla wane ne alquran ndekete sunu tedd nga la ñu yëg ko sunu tedd nga la ñu yàq koo yëg sunu tedd nga la kon loolu ndekete lu rëy a rëy la wa innahu la dikrun laka wa li qawmik yàlla mu ne ee yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallahi alquran bii ma wàccee ci yow la dikrun laka tedd nga la ñeel na ñeel la wa li qawmik ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy say noonu mbokki jullit yi mbokki doomi ndey yi màggaay gi alquran màgg moo tax yàlla jox ko ay tur yu bëri bokk na ci tur yooyu alquran ay min asmaai alquran min asmaihi alquran innahu la quranun karim yàlla tuddee ko alkitab wa min asmaihi alkitab alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يلا تديكو ذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نون يالا نيو واتي ذكر تي نيو كوي آرال سونو بوب يالا تودي كو فرقان موي لي تاخلي ديغنتي دغ اك تياخان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يالا تودي كو نور القرآن نور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا يلا من قم لن يلا قم ينتب يلا بي قم لير بما وجهتين الله أكبر kon mbokk yi ñun jullit ñi mënuñoo am lu ëpp doole alquran mënuñoo am lu gën a màgg alquran cey sunu yëgoon wàccuwaayu alquran ci ñun cey sunu taxawoon li nu war sunu wareef ci alquran wallahi keroog la ñuy tedd ba faw keroog la ñuy yokk ba faw keroog la ñuy wér ba faw keroog la ñuy am barke ba faw keroog la yàlla di kontaan ci ñun ba faw ndaxte lii mooy kàddoom lépp lu nekk ci kaw suufu si yàlla si jaamu bi yàlla la ba mu des alquranil karim alquran waxu yàlla la moo tax mu bokk ci ay melokaanam mooy mubaarak alquran kitaabun mubaarak ku bëgg barke moyal ci alquran وهذا كتاب أنزلناه مبارك yàlla mu ne téere bi maa ko wàccee mu nekk téere bu barkel ku bëgg ak barke ngoyal ci alquran alkarim yàlla tuddee ko hudan wa rahma alquran njub la rahma yërmande la wa hudan wa rahmatan lilmuhsinin alquran yàlla melal ko ne karimun téere bu tedd la soo bëggee tedd nga ngoyal ci alquran إنه لقرآن كريم يلا من الحكيم تيرب خرن له سو بقى خرن تنويل القرآن ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ما أعظم هذا القرآن ما أعظم هذا الكتاب مرة موم لصحابي أمون موم لنو فنكون موم لنو مجلون moo leen doon gunge ci seeni tukki moom la ñu doon fajoo moo leen daan wéttali moo leen daan jural lii di bànneex ndaxte téere la boo xamante ne léppam yiw la yéen sallallahu alayhi wa sallam nee na man qaraa xarfan fi kitaabillahi falahu xasana ku jàng benn araf ci alquran am nga yool walxasanatu bi ashri amthaliha mu ne laa aqulu alif laam mim xarf waxuma ne alif laam mim benn araf la de waaye alifun rek xaraf la miimun xaraf la laamun xaraf la soo ne alif laam mim ci départ bi am nga trente tiyaaba benn bu nekk am nga ci fukk sa yéene sa ixlaas lu mu gën a rëy sunu borom yàlla gën a folandi fulandi la nga xamante ne mooy tiyaaba yi waaye leer la abu hurayra mu ne kër bi ñuy jànge alquran yàlla day yaatal kër ga boole waa kër ga donte kër ga tabaxin gu xat lañ ko tabax mu ne kër gu ñu dul jàng alquran kër googu donte pale la mu ne kër googu day xat te ña fa dëkk seytaane yi dañuy ñëw ci kër googu malaaka yi dañuy wan ginnaaw kër googu kër gi ñuy jàng alquran malaaka yi dañ koy digmal seytaane yi dañ koy wan ginnaaw kon mbokk yi suñu amee lu toll nii ana lan leneen la ñuy jàmbatati ana lan leneen la ñuy jàmbatati aqulu ma tasmacuuna wa astagfirullaha li wa lakum wa li saa'iri almuslimina min kulli dambin fastagfiruhu innahu huwa algafuru rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أيها الأحبة في الله mbokk yi ñu ngi santaat sunu borom yàlla subhaanahu wa taala moom mi yelloo ak cant di julliwaat ci sunu yonent muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi yàlla tànn daa di koy yónni ci jaami daa di ñuy wax ne wa in tutiicuuhu tahtadu su ngeen koy topp di am njub moom mi nga xamante ne moom la yàlla yaral boppam def ci moom li mu def ci moom dëxëñ ci moom la mu dëxëñ ci moom indil ñu ko nee ñu wa man yuti man yuti llaha man yuti rasula faqad ataa allah képp ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nga topp mooy ki nga xamante ne léppam dees koy jël comme niñ ko waxee woon ca xutba bële passé ba sunu borom yàlla di giñ ci alquran fala wa rabbika la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum maa ngi giñ ci sa borom yow muhammad kan mooy borom muhammad mooy allah kan mooy giñ allah allahu akbar mu ne ko maa ngi giñ ci sa borom yow muhammad fala wa rabbika dunu gëm mukk xatta yuxakkimuuka lu dul na yow la nuy jiital nga leen di àttal seeni mbir te soo xasee ba wax nii la wala lii la dootul amati leneen lu ñuy xool wala leneen lu ñuy tànn moom dong moo am garanti gi ni mel ci kaw suufu si yàlla si keneen ku dul moom dañ lay roy kemuk la nga ko roy sant la ci liñ ñi woon ca la mu nekkoon waaye xam ne lii moo moo ko wax la ci jazaka allahu xayran moom rekk am garanti sunu borom yàlla wax ci alquran wama kaana li muminin wala mumina du dagan ci jullit bu góor wala bu jigéen wama kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amra yàlla akub yonentam daa di addu ci mbir an yakuna lahum alxiyara nit ki amati leneen lu muy tànn wala leneen lu muy xool wala leneen lu muy def keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo waxee sa wax dañ ciy xool la dëpp ak waxam ñu jël la dëppawul ak waxam ñu nangu la ngant delloo la ko moo tax abu bakrin gën ci xeet wi ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko falee bokk na ca la mu wax qad wullitu alaykum wa lastu bi xayrikum jiital ngeen ma waaye gënuma leen wallahi yaa ñu gën yow abu bakrin mu ne fa in raaytumuni ala xaqin su ngeen gisee ma tege ci dëgg jàppale leen ma wa in raaytumuni ala batilin su ngeen gisee ma bàyyi dëgg tegaat leen ma ci yoonu dëgg kon ndekete même saxaaba yi amuñu isma isma mooy ki yàlla aar ba du juum ci diine kooku kenn la mooy salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh keneen kudul moom kemuk lan ñu indil loolu la ñuy jël moo tax yonent bi ab kii di imam malik imaamu daaril hijra doon wax ne kullu kalaamin yuxadu wa yuraddu illa saaxibi hada al qabr kenn ku nekk sa wax am na lañ cay jël am lañ lay delloo ba mu des ki tëdd fii mooy salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi mbokk yi fan yi kat dama dégg kàddu gu xaw a doy waar amaana kàddu googu sax moo ma waxloo ndaxte bokkul woon aadatan xew-xewu munaasabaat yi dañ ko daan bàyyee mag ñi ndaxte xaaliban ñoom ñoo ëpp xikma waaye tamit ñoo gën a dund lu yàgg dama dégg benn waay bu ne yëkkati ay kàddu te xam naa ne sax loolu muy wax loolu moom la concerné ak ñu mel ne moom waaye loolu yóbbaalewul lu gën a bari ci jullitu yàlla yi mooy yëkkati kàddu ne kat ah ñi dul gàmmu ñi ñi dul organiser gàmm ci weeru gàmm ci fukki fan yeeg ñaar yi tànt ci ñooñu dañoo gàttañ lu ci àqu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw wax ci ñoom wax yu bëree bëree bëree bëri ah lii ba ma déggee ma ne waa ji kat juum na benn mooy warees na ko laaye biir waaye tamit warees na ko warees naa laaye biir képp koo xamante ne yaa ngi gisee noonu mbokk yi lii di tant ci bisu fukkeel ak ñaar ci weeru rabiun il ula dañ koy xool ci juróomi xoolin bi ci njëkk moo di lam yathbut an annabiyi sal allah sallam annahu ixtafala bi mawlidihi wa lam yunqal walaw bi xadisin daif yéen sal allah sallam saxul ñu jëlee ci moom ne mas na tàntal bis bi mu ganee àdduna donte xadis bu wérul sax ñëwu ci donte xadis bu wérul ñëw ci boobu mooy benn kanam ga ñaareelu kanam gi moo di asxaabuhu ay saxaabam rawatina xulafaul arbaa bi ñuy dund ak moom masuñu koo def waaye ginnaaw bi mu faatoo bis bi masta ñëw ñu tàntal ko du ci dawla al abbasiya du ci dawla al umawiya lam yaxtafilu bi mawlidihi fi xayaatihi wa baada mawti ànd ak loolu lépp walaw kaanu wala ñu ne saxaaba yi hum axrasu nnaasi ala ficli lxayr ñoom ñooñu gën a bëgg yonent bi foofu ñooñu gën a xam naka la ñuy toppee yonent bi foofu ndaxte ku néew liñ ci xam ñoom ñooñu ko jàngal kon su fekkoon ne foofu rek la ñuy nattee ci ku bëgg yonent bi ak ku fonk diine ah yaakaar naa kon ñooñu ci doon jiitu walaw kaana xayran la sabaquuna ilay moo tax ashhadu an laa ilaha ashhadu anna muhammadan rasulullah moo di taatuhu fi ma amar déggal ko ci ay ndigalam wa tasdiqu fi ma axbar déggal ko ci ay xibaaram wa jtinaabu ma naha anhu wa zajar moytu lépp lu mu tere bëgg sunnaam fonk fonk sunnaam roy ko bis bi mu ganee àdduna muy altine saa yu ñëwee nga góorgóorlu woor ci comme nam ko doon defee salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ñetteelu xar kanam gi moo di anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ci xadis bu wér mu ne maa alimtu shay'an yuqarribukum ila aljanna wa yubaidukum an innaari illa wa axbartukum bi man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul dara loo xamante ne day waral ngeen di dugg aljanna di sori sawara ludul na wax naa leen ko wax boobu moom am nañ ko ci xadis bu wér a wér léegi dañuy wër xool ci ay waxam ndax dinañ ci fekk tant bis boobee déedéet duñ ko ci fekk te moom nee na xamal naa leen lépp dara desu kon waxam boobu moom la ñuy teg sunu kanam loolu la ñuy tontu mbokk moom yi di wax ne axbarana bihi alayhi salaatu wassalaam walaw an la amarana bihi su fekkoon ne ak yiw dong dong foofu la lii tegtale bëgg yonent bi foofu rek la tege foofu rek lañ ko mën a nattee ah kon de mu digaloon ñu ko ñetteelu ñeenteelu xar kanam gi moo di lam yuraf ala alyaqini mata wulida alayhi salatu wassalaam abadan yonent bi salaa sallam kañ la gane aduna loolu kenn na xamu ko amul benn dalil bu ñëw muy wax ne fukkeelu fan fukkeelu fan ak ñaar ci ga ci weeru gàmm ci laa gane àdduna loolu amul loolu kenn mënu ko génne boroom xam-xam yi wuute nañu ci kañ la gañe àdduna ci fukki wax wala ci juróom ñetti wax ñii ne bis bii la ñii ne déedéet bis bële la ñii ne déedéet bis bële la ñii ne déedéet bis bële la ànd ak ne la ëpp ci ñoom nee nañu fukkeelu fan ak ñaar ci weer ci la judd ñi ëpp ci ñoom waaye loolu lépp ci fan lañ ko jëlee moom mooy ci li gën a siiw waaye amul benn dalil bu koy saxal amul benn lan dalil boo xamante ne moom moo ñëw di ko lan di ko saxal ta rek wa ma tanaqalahu nnaas moo tax même wuute googu amul kenn ñoom ko xam ne dafa dogu ne force ne bis bii la juróomeel bi mooy bi ci mujj wa min aadamiha mooy ijmaa dafa am diggante borom xam-xam yi ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu wér mu ngi faatu fukkeelu fan ak ñaar ci weer bi xam ne mooy weeru gàmm ah kon mbokk yi la jaadu woon mooy kookee nga xamante ne moom dafa bëgg di tànt ci bis bi ah moom ah mu ne la lii de yonent bi dafewu ko woon ni waaye bidaa bu rafet la loolu mooy gis-gisanam moom andax nag jaadu woon na mu wëlbatiku di ŋàññ ñi nga xamante ne duñu tànt bis boobu kon kookee mooy ki nga xamante ne moom moom moom kàddu yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla nu yàlla delloo ci dëgg gën ji rafet ak delloo mbokk yi ci xutba bu njëkk bi ñu doon junj alquranil karim ak wàccuwaayu alquran daan ci dégg qissa ya ca saxaaba yi taxawoon taxawaay ya ca Ousmane amoon alalu Ousmane jaral gi mu ko jaar loolu dañ ko daan dégg di ko jàng waaye jékki-jékki gis lu koy firndeel benn jëmm ju baax mu ngi tudd Cheikh Zayid Shah dëkk fële ca sibhu jaziratil qar al hindiya yàlla dogal mu nekk nit koo xamante ne ci wàllu business na yëngu yàlla may ko mu jàng côté angale ba taxawal ay entreprise am comme ni ay nit di defee loolu te mu nekk lu am solo waaye mu xëy xëy moomeelam góolu alalam googu yépp mu wëlbati ko waat ne kat alquran waaw ci àdduna bi lan moo tax xale yi rek ñoo koy jàng lan moo tax mag ñi ñu gën a bari dañuy jàpp ne ñoom weesu nañu fi ñu jàngi alquran mu ne lii fokk ma góor-góorlu ci loo xamante ne dinaa ci wutee ngërmaande ak yàlla subhaanahu wa taala bi loolu amee mu dem ci ci ay réew ci adduna bi bal man ci li ma fekkee lu amul seede dañuy wax ne ne loolu nettali ko sax neexul njëkk weeru koor wi bi mu desee ñaari semaine yaakaar naa maa ngi ñibbi si bis bu njëkk ci weeru koor man ak sama ñaari morom jëlee nañ ñu fi ndax am rafet njortu ci ñun ci alquran yóbbuñu ci réew yooyu ci ñaari semaine yi ñu dalal ñu ci ay hôtel ñu fekkee ay jotaay waaye li gën a yéeme yóbbu nañu ci lu war a tolloo quinze entreprise moom ci boppam mooy ànd ak ñun su demee ci entreprise bi yooyu yëpp mu ngi fay liggéey day ñëw ci entreprise bi wax ak kilifa gi nee ko dama bëgg nga may ma ñaari waxtu rek ngir yàlla ci semaine bi mu nekk pause ñaari waxtu yooyu soom imma nga may ma ko wala nga xool nooy waxeek man ma su ñaari waxtu yi jotee man dinaa jël benn waay fay ko mu ñëw ci entreprise bi pause am ñëpp dajaloo ci jàkkay entreprise bi mu jàngal leen alquran donte benn aaya la ñu mokkal ko mu daal di dem loolu su continuer balaa yàgg dina nu am dara waaye yemu ci jël moomeelam ak alalam di wax ak ñoom ku yegg yaasin dañ la may billet nga umra wala ku yegg baqara wala ku mokkal tegal leen ay lan ay cadeau yoo xamante ne ba gis nañ ci ay mag yu bijjaaw yoo xamante ne jàng nañ ci ba jeexal kaamil bi mu nekk mbir gan googu nag moom moo ñu ziyaare si tey mooy moom ak gorom ak benn xaritam ñoo jóge ba dëkk ba ñëw ba Sénégal fii ziyaare si ñu ñu ngi koy dalal xam naa incha allah suñu jullee ba pare du ñàkk dina nuyoog mbokk yi daal di ñaanelanteeg ñoom sunu jullee tàkkusaan insha allah dina ñëwaat ci jàkka ji won ñu programme boobu même da koo jël ay vidéo won ñu ko nga gis ay ci biir entreprise yi nit ñaa ngi taq huile ba kii toog di jàng ci bërëb yi nga xamante ne bërëbu damier yi la mu ñëw ñaan leen ñetti ñetti heure noonu noonu ci façon boo xam ne bu ne ñun sunu bët moo ñu ko may kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla taxawu ko yàlla na yàlla delloowaat ci jul jullit ñi ci alquran gën di rafet ak delloo bi ci mujj mooy moom de soo demee ci seen réew yële mu ngi bokk ci ñi nga xamante ne dañuy wax ne ne sëtu yonent bi lanu sallallahu alayhi wa sallam ñeneen ñi bokk ak moom amaana ñu ngi def ay tànt ak yi ni mel waaye moom de la mu jublul moom mooy alquran dong ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla fay ko ndaxte loolu de moo nekkoon taxawaayu yonent bi wa ahlu bayti tahirin mooy jàngale alquran ak sunna allahumma rabbana fi dunya xasana wa fi alaxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana la tuzi qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab ya xayu ya qayum ya badica alsamawati walard يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين